lu temps que ma dem ci euh, Moustapha Diakhaté mhm. moom nee na Ousmane Sonko ba tey dafa nëbbu dëgg maanaam waxul dëgg ci ay kaddu maa ngi tuub ci kaddu yi ma koy parce que respect la parce que institution la wax euh, ci yooyu la ko yëgal non non fen fen fen fen du mu kii nag mooy wax lu dem na ba si ne li mu doon wax en tant que opposant bokkul ak tey li mu wax loolu bu fekkee Moustapha Diakhaté moo ko wax dina am déglu Moustapha Diakhaté. Mm. parce que man damaa egg foo xamante nii xam naa ni kii li muy wax nekkul objectif. Mm. mais day ko déglu nag. ah parce que objectif bi moom day wax pour xas pour yàq. Mm. Ah, mais. bu mu la vérité. te sax su am xëy na moom mi ngi xaw a changé terme bi. ñu ngi koy gën a maam jubbanti ak lu dëpp gis-gisam. mais ñun ñëpp déglu Ousmane Sonko li mu wax. xam nañ ne maanaam li mu bëgg a wax mm-hmm. bokkut ak ni ko musufaa Diakhaté di leeralee benn mm-hmm. ñaareel bi mooy man Moustapha Diakhaté li tax dégluwuma ko xam naa ne nekkul ko objectif mm-hmm. waxam wax la pour yàq mais Ousmane Sonko ñun ñu ko yàq xam di ko topp dipp bu yàgg ay dipp ay at di déglu ay discours am A ba Z xam nañ bu baax que ne discours am dara changé wu ci dara changé wu ci waaw euh, leen daal laa mën a wax mooy en tant que chef de parti ak en tant que PM xëy na ci communication mën na am yenn terme yoo xam ne mën na koo moytu. Mhm. parce que loolu ci ko man ci côté diplomatie mën na am lu mu yàqal Sénégal. Mhm. te te priorité Ousmane Sonko mooy Sénégal nekk ci jàmm. Mhm. Sénégal défendre Sénégal aar Sénégal loolu mooy priorité mais ku dégg ni mu waxee te dëgg rek tax la jóg. ci discours bi amul fa fenn foo mën a sukkandiku wala nga jàpp ci ba am leen luy wane ne moom lam nekkoon da cee jóg mhm. la mu waxoon bërki démb wax ko ñëpp di ko dégg mooy homosexualité warul am ci réew mi dañ ko war a xeex sanq saa mi nga wax lu am solo mhm. ci ne xëy na criminaliser ko mën nañ fa mën nañ fa ñu egg mais mën nañ ko def genre délit mhm. mais mais xam nga léeg-léeg loolu ñu tuddee góor jigéen acte concomitant mais ah. ci wàllu homosexualité la bokk ñaar ñoo xam ne ñoo bokk même même même awra ah. ba noppi di sëy seen biir di sëy seen biir maanaam loolu mooy bu ñu leen juróomi ati ah, kaso bi mm-hmm. dèjà am naa ci mën naa ci am firnde parce que xam naa ñoo xamante loolu lañ leen toppee mm-hmm. am na koo xamante ni du ma tudd turam mais dèjà mosu ci tëdd cinq cinq ans yu ma sëkk tëdd na ko ci loolu ci ci seq ak ñoo xamante ne nii du maanaam maanaam def yëfu góor journaliste bi ko fi defoon wala waxoo non pas journaliste bi mais ñuy wax ni xëy na du ma bëgg a leeral ñan lañ mais xam naa leen ah, te te it ah, xëy na ñi leen xam man de moo xamoon nañ leen xam mais <laughs> ah, benn affaire mooy uh-huh. loolu lu lu ñu aaye Sénégal la mooy acte contre loolu xam nañ ko uh-huh. mais kañ lañ ko aaye mooy nga fésal ko ñu fekk la nga koy def uh-huh. wala nga def ko sax dèjà kan ko def nga gaañ ko moom mu def plainte ñu xam ne lii yaa ko def mais dañoo bëgg évoluer loolu yokk ko ba nga xamante ni dañ koy wax mu leer nañ mm. lépp loo xamante ni lu xëy toog ngóor jigéen la mm. Sénégal ñun en tant que peuple xam nga suñu ab ab peuple maam benn chambre mm. moom moo war a définir loi yi koy atte moom mm-hmm. waruñoo dem di copier yi ak coller ci benn dëkk dañoo war a xool suñu ay culture suñu ay aada suñu ay bëgg-bëgg mm-hmm. ñu fexe ba loolu di di feeñ ci suñu ay texte mm-hmm. maam maam ci li ñuy atte ak ci li ñuy tënk da war di feeñ loolu moo tax ñun ñi ñëpp xam nga ñu toog fii ñëpp ak képp ko gis ci mbedd mi bu fekkee ku yaroo Sénégal la yàgg fi bu nekk góor jigéen sax maam di wax ak moom sax day xaw a génne wu parce que mm-hmm. loolu bu xamu ko mm-hmm. léegi tubaab bi ñoom ko xam mm-hmm. tubaab bi nañ leen bàyyi ñoom nañ mel mais ñun suñum réew ni muy doxee ñun ñoo koy tàmm Ousmane faudra aussi ñu saluer kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na Ousmane Sonko li mu wax Ousmane Sonko li mu wax kaddu bu kaddu la boo xamante ni keneen ku dul moom koo fa tegoon ku nekk ci dayo bi mu nekk am na yaakaar ne du waxee noonu parce que dina am ay calcul yu xalaat bi du wax parce que Macky Sall mu taxawee lan la waxoon pare guñ pour maanaam pour pour nangu ko Sonko bi mu taxawee lan la wax ñun mën nañoo taloore waaye loolu bokk ci suñuy gëm-gëm bokk suñu diine wax na clairement que loolu ñun maanaam bokkul ci luñ mën a nangu bokkul ci ñu mën a dëppoo ak yéen. d'accord d'accord xëy na dinañ taloore parce que taloore bi mooy le fait ay wuñ ko officiellement. ma mënoo. Ah, ah non aaye nañ ko aaye nañ ko. aaye nañ ak ci continuité bi xam nga tey xam nga yow mën a wax ne gis naa artiste tel. mu ah. sol bu am. waaw arc en dem jàpp. waaw amus benn trois parce que ah. aay wuñ ko. ne gis naa. mi ngi nii dañu ni l'homosexualité est punie au Sénégal par oh. l'article 319 du code pénal alinéa 3 issu de la loi 66 16 du 12. acte acte continuité la bëgg wax. l'homosexualité est punie non l'homosexualité mais nan ngay xamee ne kii l'homosexuel la. maanaam boo xamee ne kii l'homosexuel la da koy mën a dem jàpp tëj. par exemple tey par exemple tey bu doon tey ñu fekk ku ñu ñun. waaw waaw non non lay wax la. di wax man mii sax laa sama jabar bu ma ko takkee dem di sëy ak moom ci mbedd mi yoon damaa jàpp. non loi Sénégal am na ci yëre yoo xam ne boo ko solee laa la wax ci mbedd mi nii ak yooyu kii dalaa jàpp. ndax lu dëppee ko suñu. ko kiiwee des na mooy te yow bu nit waxoon ne. moom góor jigéen la benn hmm. nit ndax dañuy dem ñu jàpp ko xam nga am na fi ñoo xamante ni xam nañ leen hmm. ci réew mi hmm. ñu koy wuyoo wax ne ay góor jigéen lañ ba léegi ñu dox seen soxla kenn jàpp leen ça veut dire que góor jigéen ba léegi aayuñ ko Sénégal mais nag dañ ko fee war a aaye loolu xëy na tànk ñu war a jaar pour def ko ñu koy ñu koy dox ñu si ànd sam jikko yi ba léegi ñu ngi si liggéey te régime bi fi nekk tamit ñoom wane nañ ne pare nañ pour jàppale leen si xëy na avec le temps buñ ci tollee ko def d' accord maanaam lu jël polémique yaakaar naa amu fi quoi. d' accord d' accord merci sëñ sëñ sëñ Amdi Mbacke. Hmm. Euh, lan ngay wax ci kàddu Moustapha Diakhaté yëkkati. bon Moustapha Diakhaté pour man nag mi ngi def rôle am quoi oppos opposant day xool. Hmm. bu état defee dara lu gën a baax mu xool lam ca mën a ŋàññi ŋàññi ko. Mhm. loolu moom la Ousmane ko doon def mais na koy dañ koy teg ci dëgg rek nay nekk di moom la keneen def kuy opposé ku nekk da nga def rôle opposant man loolu aw ma ci problème. Mhm. xam nga lan laay am problème man fi mu toll nii Moustapha Diakhaté laa gën a nangul que Imam Makhtar Sarr ci erreur njuumte bi mu dugg. Mhm. da euh, soriwul nag maanaam mën na ko dabaatal maanaam tey bu xamoon ne xam nga wax na ne xale yi parce que tuumal na étudiants yi. nee na kii dafa taw xaw di déclarer ne homosexuel laa ñu di ko xam nga euh, da doon défendre homosexuel ñu di ko tàccu te demeewul noonu loolu du dëgg. Hmm. voilà loolu fen la tudd. jàpp naa ne jubluwu ko ci dañ ko indi dafa am ay journal yoo xam ne man bi ma xëyee liir man bi ma dégloo Ousmane Sonko ba noppi dama ne amatut man saa lu may xaaral damay nekk membre Pastef bis ni ki tey mhm. ci laa woo oustaz Cheikh di ko wax mu ne ma kon de yàgg man même man mi nekk booba Pastef ñoo bokk defaandoo suñ ah, déclaration man ak man ak oustaz Cheikh ñoo defaandoo suñ déclaration mhm. kon man dafa mel ni kon télé bi ma doon seetaan wala Ousmane Sonko bi ma doon seetaan ma xëyee di lire déglu revue de presse mel ni man leneen laa fekke wala leneen laa doon seetaan te alors que loolu yëpp nag mhm. opposition man mën naa ko ko may comme ku mel ni Moustapha Diakhaté mm-hmm. mais moom bu waxee daf may may man saa wolof ma daal di ñëwaat daal ne ah fii kat li mu wax ne Ousmane Sonko dafa wax ne nangam ak nangam déedéet loolu li Ousmane Sonko wax lu am la Sénégal ci boppam yàgg nañu gis góor jigéen gis naa gars yi di wax nag naan góor jigéen yi gars yi xamoon mooy ñiy def nii di def ay maja ñooñu même ñooñu laa la wax kuy dem ba yegg foofu boo jekkoo sa morom def ko ko loolu xoolal bu ñu fi nekk di layaam layaam yi mhm. ñaata nit ñoo am fii ay nangam yoo xam ne dañ leen a xamee euh, tëddee kii bañ xam ko mhm. am nañ koo xam ne ab conférencier la fii la daan nekk tey bokkoon na ci li doon njëkk di di di teg mooy sëñ bi mooy sëñ xaw ma kan xel koom noonu mhm. daan daan wax kii mu ngi ci ko xam naa moom la sëñ bi di wax sama xel a ngi ciy doog a def kooku sama rak xaritam la bi mu ci demee ba koy defande ak yooyu dama ne ko yow li kiy wax bañ yóbbu ko fee tey bàyyi ji wax nee na moom euh, taaliba sëñ saaliw la mhm. xale bi ñu ko def maanaam baayam ak ndayam taaliba sëñ saaliw la yow bu dee dëgg la ëllëg yow boo toogee yow mal xeyam doo ko layoog moom ma ne kon amoo pour défendre ko mhm. sa xarit la wala naa xamal fi nga ciy yem man awma problème ak yenn yi nit ñi di am nii beneen bi tam Tamsir Sipiteer Njaay boobu ñu gars yi bañ a tudd mhm. du euh, ab lool te doon ko doon ba yóbbu yóbbu ko ci kaso ci lu demee noonu pourtant nit ñi xamoon nañ ko fii saa yu daan ñëw day dal ci ko koy wax maanaam duñ ci woon sax yegg te ñu bëri xam nañ ko loolu du tolérance. Mhm. xam nga nit ki bu ñu soor génnee mbir ci contexte maanaam booba Sonko Mélenchon la taxaw di waxal tubaab yi lay waxal. Mhm. mel ni nga nekk ak tubaab bu lay waxal naan la non parce que seen waxtaanu démb bi mu indi ci public bi. Mhm. mënoon na ko bañ a def nag. mais ci transparence am ci la indi ne pour teel a wan te gis nga bu fi ñëwoon ba dem. te waxuñu ne am nañu désaccord ci yenn yi. boobu lay gën a garaaw fuuf parce que ah, Mame Matar Gueye avant boobu. dafa njëkk wax voilà non armée bi base avant <laughs> avant ñuy def conférence ku mel ni Mame Matar Gueye dafa njëkk wax ne nañu indi sax nu ñu koy wax maamu xaw ma lan ak lan du teeye parce que kii daa mas a défendre euh, homosexuel xam nga loolu mm-hmm. léegi nag lu mel noonu tax na Sonko bu waxee ne jubawuñ ci lépp. nangam ak nang mais moom tamit day répliquer parce que dafa am benn communauté bu mu séduire ba jàpp ñu votel ko mu ñëw taxaw ne. man mii maa njëkkoon a nekk seen kii. Hmm. ñëw naa daal ne Sénégal peut-être yéen da ngeen ko nangu ji. mais booba Ousmane ko dafa ne débat bi daa waroon jeex foofu. te hmm. dafa ne may leen ko nag mais dafa ñëwaat taxawaat recadré waat ko joxañaat ko baaraam wane ko ne ko yéen yéen a ngi ni loolu mënul nekk. Hmm. parce que loolu mën na nekk procès casus belli ci ci ci ci ci diggante Afrique ak nangam. mooy loolu mën na nekk déclaration de guerre baat boobu dafa am sens. mooy lii toj way këpp gaal la kenn du ko fi way. moo waroon andi tey ci nangam ak nangam mooy loolu baat bi moo ci teg mhm. li ngay wax ni mu nga ne ko woy wuy këpp gaal la fii ak tefes la mhm. doo ko fi doo ko doo ko fi way mhm. moo tax mu wax ko loolu ba wax ko ne ko yéen yéen a ngi nii nanguwu leen polygamie jigéen ñi muuru foofu sax jël na défense su l'islam ak nañuy exercer suñ diine fee ñun en tant que musulman mënuñ ko def France te hmm. Amérique pourtant ba yegg sax jàngalaale ko problème mu laïcité bi nga xam ne mooy France laïcité bi mu bëgg a imposer àdduna bi te du dëgg hmm. Europe ñëpp nekkuñ laïc hmm. France ci biir France sax am na fa ay kii yu bëri yoo xam ne ñoom duñu ay laïc ils sont pas des laïcs Turquie moo fa woote laïc ak France Europe yëpp mais même France sax boo duggee ci biir am na loo xam ne nekkul laïc turki moom état laïcité la moom. foofu amul feneen fu ko doomam. par par par par par yu bëree bëri mais demal laïcité Amérique maanaam moo yor laïcité wu France boog laa wax parce que man la laay waa ba ji balaa ko teg. Mhm. laïcité bi yëpp états mooy bépp diine boo nekk accepté nañ la mooy bi am Sénégal. Mhm. culturellement parlant Sénégal ak États-Unis ñoo xaw a niroo laïcité. Mhm. am na ci état yoo xam ne sax d'accorduñ ci ba léegi dajut fépp. donte ne tey mi ngi ci yoonu euh, daj maanaam nguur jigéen man fa dem teg dañ ko dañ dañ ko bañ mais mais États-Unis mën ngaa waat ci bible mhm. mën ngaa waat ci alxuraan mën ngaa waat ci Torah mais France mënoo faa waat waate ci loolu parce que dañu naan euh, au nom xaw ma vive la au de la république ak au nangam nangam te mhm. Amérique pour nga nekk président dangay waat teg sa loxo. Mhm. xeetu laïcité boobu moo gën bi te boobu mooy bi ñu am beneen bi mooy li ñu la wax ne la Sénégal fii diine bu nekk a ngi fi. am na fii benn rabbin israélien bu mas a ñëw booba la ñuy wax ci lan mooy kii wu Sénégal exception Sénégal quoi gars yi di ko wax à la euh, islaam dialogue islam moo kere ci affaire yooyu mu ne yéen dëkk ya ma dem ñu wax ko ne ko fii diine yi nangam nag mu ne dëkk ya ma dem fu bari dañuy tojantey bopp te li am fii dafa am ñu doog koo andil ne ko ca ca suñuy maam ba dara dooru mooy li ñuy wax cousinage à la plaisanterie kal doomu mm. nijaay ak doomu bàjjan tegal ko ko ba mu leer mm. mu doog a xam ne la suñ mag ñii ñuy wax ñu baax ñi ñuy jàmbaar nag bay ci l'islam ak histoire u Sénégal wu yaatu mais ni ñu koy expliquer sax dafay mel ne yow l'islam ci âge agamar la la yam jëm suuf jëm si ci ñun te yow ñi ngay wax nii ñi leen jur fi lañ ne mm. dañ leen a yar ci jom yor leen ci ngor ngor lépp fii lañ ko xamee ba taxaw xeex ci liñ ci man mm-hmm. flamboie boobu nag moom la ñuy ci seen ay sët ñu doon bañ bañkat fi ñu toll bu ñu demee ba bàyyi ko mooy loolu mais ñoom dafa am ñu leen fi jiitu mm-hmm. doonoon ay nit yoo xam ne doonoon ay nit yi nguur ak yooyu jot ci lislaam mm-hmm. l'islam ji ñu rafetal ko bañ am leen ci ñoom ñu ñëw dem au delà de ñoom ci xam-xam ci jom ci fit sëñ Tuubaa li ko yóbbu nii ñu koy sant yàlla mais def nañ ko lépp luy tax nit faatu yaakaar lu faat Mamadou Lamine Dramé mënu ko woon a yóbbu moom it. Mhm. wala lu faat la la max di de Galaya. Mhm. mais lu ne tubaab bi def na ko pour pour pour pour pour mu faatu des fa. Mhm. suñ borom def ko kéemtaan mu ñëw ci ñun. Euh, tey jii tey di liggéeyam di fis ba faaw mais réew mi dañoo war a xam ne dafa am cosaan dafa am lu fi nekkoon ñun ca démb. li ko fi def laata lislaam di ñëw. ñun xaaruñu lislaam ñëw naan ñu bu leen rey seeni doom di suul pour ñuy xam ne. baaxu yu jigéen te am na maamin arab yu koy yu koy def y compris am na ci saxaaba yu tuub yoo xam ne sax mas nañ ko def mhm. ñun masuñ ko def fii amut fii mas naa seq ak benn oustaz ci wàllu débat wu euh, xam nga rek comme commencé ab oustaz Massa Sarr gi lu mu wax rek ak côté féministe xam nga moom moom moom féministe seen guerre du jeex <laughs> kooku tamit noonu la mel mu taxaw naan jigéen ñi war nañu sant l'islam parce que dañ leen daan raye di suul ma ne ko yow sëñ bi mu ne am ne ko da ngay dem ba fañu fañ leen daan raye di suul nga wax leen ko fii loolu mosu fi am fii xaar ñu lislaam ñëw fii maanaam ñu doog a xam ne góor jigéen baax culture daf ko lislaam tame la comme ni ma koy waxee ak mhm. imaam Dame Ndiaye da ngay ree ba sonn tame la bu ñëwee daf lay tame li wadd mu ne la bokk ci amaana bi mu tamee Sénégal Sénégal peut-être 10 pour cent rek moo wadd dafa tëdd parce que bari nañ ci ko yu rafet yoo xam ne ñu avancé ñu avancé waxtu waa ngi dem ci Omar Sow ancien ministre